mbokk ki jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di ziar ñëpp ci koor gi di leen nuyu di leen balu àq bu baax waaye tamit euh, di sant yàlla bu baax euh, ci kattan gi mu ñu may ak wéruk mën a teew di nuyu bu baax El Hadji Modou Diouf euh, Top Ablaye mais aussi saa njogu son yi bu groupe solution yëpp ñoom Assane ak maa jigéen Aïcha ñëpp ñu ngi leen di nuyu ba ci ñoom Fallou ñëpp. ñu ngi leen di ziar tey nag euh, ñuy laaj benn laaj di ko tàmbalee mooy bokku Pastef wala ànd ak sënko bàkkaar la am déet est-ce que péché la ci senegal parce que lu tax may laaj bi la laaj mooy yi mujj xew yépp boo ci def jàngat bi ma njëkkee rek mooy docteur Manick Ngom mooy docteur ophtalmologue bi faj bët ñu ne woon da doon consulter Sonko jamono yi mi ngi ci loxo takk der yi ñu téye ñu ne parce que da doon faj Sonko ñu ne da doon jëfandikoo médecine koo xam ne ci pibli la war a ne dem di ko def ci privé maanaam dafa dem ci privé di xarmat li lay wan ne nag. ñi ñoo bari tappale mooy nee nan bi ko yoon woowee li jëm ci xibaar yi jëm ci wér-gu-yaramu Ousmane Sonko lan ko noonu laaj mu bañ ko joxe liir naa sax benn post di benn bind bi mu bind bi mu demee mu ne woo nan ma ci kanam ku yoon waaye dinaa dem wuy ji waaye lépp loo xam ne secret la sama liggéey du ma ko joxe loolu nag nga mën ko toppee ab médecin te Sénégal ñu yàgg a wax secret médical secret médical kii di président Macky Sall dem na ci ci polyclinique bi nekkee ci hôpitalu fan boobu kii di docteur Sidi bi ñu doon dégg ci corona bi moo doon ibbi boobu polyclinique président Macky Sall ne kilifa yi bari na ci ñoo xam ne dañuy feebar bëgg a fajoo ci réew mi waaye duñ fi mën a fajoo ndaxte fii ci réew mi ñun amuñu bàmmeelu biir ndaxte bari na fi ay kilifa yoo xam dañuy tëdd kër docteur nga xëy di dégg ci presse bi wala ci mbedd bi ñu naan lii moo leen dal. te feebaru jàmbur kenn du ko weer loolu nag jëm ci secret médical président Macky sàll jàpp ni dañ ko war a sàmmal ñëpp ba tax mu dem ci polyclinique di ci wax léegi ñooñ mu ne na leen ko sàmmal Ousmane Sonko da cee bokkul am déet ba tax docteurs yi ko doon consulter ñii ci wàllu échographie ñii ci wàllu ophtalmologie ñii ci leneen ak leneen ginnaaw ba ne dañ ko pomp ginnaaw ba ne dañ ko bëgg a ñu ne enquête bi enquête criminelle la. docteur bi dafa war a génnee ay xibaar jox leen pour ñoom ñu mën a topp enquête bi est-ce que enquête bi moo leen ñor wala bëgg a toroxal Ousmane Sonko lu tax ñuy wax loolu procureur général bi mujjee jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi dem na ba ne def nañ perquisition ci suma ngir xool la génn kayit ñoo fa ne Ousmane Sonko génn leen li yoroo leen sama benn kayit sama bulletin jëm ci wàllu wér gu mooy lépp yóbbaale naa ko ci xibaar léegi ñu topp docteur ya di woo di woo ba tey jii docteur Magny ngoom ñu téye ko bari na ay docteur yu ñu woon docteur ñaa bi ñu ko woowee dañ ko woo yóbbu ko sous contrôle judiciaire kii di docteur Aminata moom tamit danoo yolomal jëm ci moom pour docteur Magny Ngom ñu yóbbu ko garde à vue téye ko pourquoi may dikk ci moom ñu ne mbiri secret médical euh, moo tax enquête bi dafa waroon a joxe mais aussi ki nekk ci public dem di exercer ci privé ñaata enseignant ñoo nekk ci réew mi di jàngale ci public bi ba pare dem di jàngale ci école privée est-ce que yoon da kaa wax ci réew mi ñaata médecin ñooy liggéey ci public bi dem créer ay clinique ci privé bi est-ce que dal leen a mos a woo ci yoon ñaata journaliste ñoo fii liggéeyee ci ab yéenekaay wala ci journal ak télé dem di liggéeyee feneen est-ce que dal leen mos a woo ci yoon ni da ngeen nekk ci liggéeyu jàmbur warul dem def beneen liggéey léegi ma laaj benn médecin mu ni ma dafa am benn vide juridique yoon waxu ci dara mais dafa am benn vide juridique pourquoi yet boobu dal ci docteur Magny Ngom pourquoi ma tànn docteur Magny Ngom min ne moom moo doon consulter Ousmane Sonko am na ñu ne benn Pastef la bokk moo tax xam ne docteur ñaa mënoo wax Pastef la bokk mais aussi ki di Aminata ak ñeneen ñeneen ñun woowoon mënoo wax Pastef lañ bokk mais moom dana Pastef la bokk lu tax docteur Magny Ngom Ngom la sant docteur Magny Ngom rakk la ci Nafi Ngom Keita maanaam Nafi Ngom Keita bi fi jiitoon nag te woon fi ab kilifa ci wàllu yoon na ko defal lii di euh, déclaration de patrimoine mu bañ mu kalaame ak Macky Sall Macky Sall na ko bàyyi ko kii sama waay la Nafi Ngom moo fi woowoon ay ministre na leen def leen déclaration de patrimoine dem ci émission opinion dem ci grand jury dem ci émission yi gën a mag ci senegal yépp toog fa di jéebaane ay ministres yi ba na def déclaration de patrimoine te déclaration de patrimoine dañ ne képp ku ñu ëpp milliard kooku da nga war a wax sa patrimoine nan la toll docteur kooku la dina fi ngom doon ku jub ba ñëpp nangu ko mais président Macky Sall dafa xëy dàq ko ca OFNAC ndaxte femme bi dana ab ibaadu la nit la ko am éthique mais nit la koo xam ne ku jub la mais ku dëggu la mais ku am fit la te comme ñoom jubuñu ci leen poussé femme bi yóbbu ko frigo femme bi nekkoon na inspection général d'État ñoom nag mere googu ñu mere Nafi Ngom est-ce que nekkul ni moo tax nu mere docteur Mbagnick Ngom mi bokk ak moom ndey ak baay damay wax de parce que képp ku jege Nafi Ngom depuis Nafi Ngom jóge OFNAC wala IGE wala OFNAC surtout nag dañuy lay topp ci yoon benn bi bi ci jutu mooy Fadilou Keïta bu Pastef fadilu Keita doomu Nafi Ngom la docteur Magny Ngom bi mooy ndijaayu fadilu Keita fadilu Keita mu ngi ci kaso bi ginnaaw faatu Didier Badji ak keneen ki lan ne la bind ab poste mu ne est-ce qu'on n'a pas tué mon muy laaj ni est-ce que faatuñu frère am parce que ki di Didier Badji ak euh, keneen ki daf ci am koo xam ne dafa jegoon yaayam yor kaarangam dëpp ko ñoom ñi nekk xale bu xëyee faatu koy sar na posé question ci ni lan moo leen faat ñu jël ki di Fadilou Keita bu Pastef moo yoroon nemmeeku tuur dem dugal ci kaso bi kii ñu jàppaat di Mbagnick Ngom di jaayam la ñoom ñëpp nag kii di Fadilou Keita doomu Mbagnick la doomu Nafi Ngom la kii di Mbagnick rakk Nafi Ngom la léegi est-ce que nekkul ne dañuy acharné wu ci njabootu. Nafi Ngom il faut ñu laaj loolu parce que li ñuy toppee Mbagnick Ngom médecin buñ ko toppee nga la waay tëj la ci kaso bi parce que nag kii di procureur général bi mu toogee di wax ak tas ko di xaar wax na deux heures de temps mais bi muy wax jëm ci secret médical ak di wax ñoom seen mais moom am na foo xam ne dafa dem ba ne li jëm ci secret instruction man dama ko gëm moo tax duma ci wax mooy moom secret instruction bi leen tere ci wàllu yoon ne waruñu ko génnee moom génnewu ko moom nag mu bëgg sàmm liggéeyam fonk liggéeyam est-ce que moom mi gëm instruction ne secret kenn waru ko génnee est-ce que kooku war na jàkkaarloog ak médecin taxaw naan ko li jëm ci secret médical dañ ko war a génnee buñ génnee woon bulletin médical bu Macky Sall dina neex waa kër Macky Sall buñ génnee woon bulletin médical bu procureur dina neex waa procureur ndaxte nag fii mii man di keneen ak ku mën ci doon ku ne am na looy doxaale ku ne am na lu lay metti te lii mu doon un précédent dangereux ci lii ñi teg Nafi Ngom mi nii parce que mere nan ko doomam mi ngi ci kaso bi parce que li ñu toppee Fadilou Keita mais bu dee ni dëgg la mais nan toppi amat Suzanne Camara kii dafa laaj kan moo rey Amath Suzanne Camara dafa taxaw mu ne xam na kan moo rey Fulbert Sambou ak Didier Badji loolu moom loolu la wax ñu bàyyi fii kii di Amath Suzanne dem jël Fadilou parce que ku tur bi lan bëggoon arrêté mais benn doomu Nafi Ngom la beneen bi mooy Sonko lay àndal Fadil boobu ak tey jii ngi ci kaso bi te kenn xamul lan moo ko fi téye parce que Fadil li mu ko téye tegul fenn tegul fenn ci poser question ci man bi yàlla dogal na ma dem ba ci Facebook am capture bi ñu defoon ma lire ko mais benn mot bu gàtt la bind phrase bi sax matul Fadil tey jii doomu Nafi Ngom mi ngi ci kaso bi. acharnement bi ni teg na fi ngom dafa war a jeex beneen bi mooy kii di mañi ngom mi ngi ci kasam ñaata docteur lan woowoon ñaata docteur lan woowoon lu waral ñu sëngali famille nafi fi ngom kon sénégalais yi war nañu jug na fi ngom nag bu mu ko dee tudd du ñàkk nag tappalekat yi parce que comme dañoo mën a kàcc mën a fen man sama yaay ngom la sant waaye bokkul ak ñoom dara mais boo leen dee défendre mun nañ taxaw fee daan est-ce que amuñu ay lien de parenté ñun injustice lañuy bañ ñun justice bu daloon sax suñu kaw ñun ñii wala suñu kaw nawle wala suñu mbokk bu dee dafa tooñ duñ ko faral mais li c'est un précédent dangereux bi ñu teg docteur Magny Ngom Nafi Ngom naka noon Fadilou Keita maanaam tey jii yow boo ñàkkee sa rak mu dem kaso nga ñàkk sa doom mu dem kaso mais ça veut dire que yow desootoo dara kon singali gi ñuy teg ci Nafi Ngom ci mere gin ko mere dafa war a dakk jeex tàkk loolu dama ci bëggoon a wax mais beneen bi ci topp. mooy lu tax ma ni Pastef bokk fa bàkkaar la bi ñu jàppee ay xale yu bari ñu toll ci quatre cent am na ñu ci bàyyi mu am ñun ci jot a bàyyi duma tudd seen tur waaye am na ñu ma ci toog waxtaan ak ñoom ñu expliquer ma lu waral ñu jàppoon leen dama am ku ma ci waxtaanal mu ni ma ma ko yow eh, bi leen jàppee lan la leen jàppee ak bi ngeen demee lan la leen wax mu ne ma Omar mu ne ma gars yi dañoo bari caaxaan quoi. ma ni ko <clears throat> lu tax lu tax loolu mënu ma non am na koo xam ne dan na ko manifestation yu doon am yow yaa leen doon financé maanaam yow yaa doon génne sa xaalis di financé ndax danga am xaalis ñu ni ko nag ba ñu reyoon ca réunion ba ñu doon def ñu ni ko nag bi yaa ko jënd ab association bu ñu dee daje man ma nekk ak samay nawle ëpp leen wërsëg wala boog ma gën leen a tàlli wala ma gën leen a xer xanaa nag bu ma dajalee mbooloo dinaa jënd ataaya wala ma jënd gerte caaf ñu lekk bu ma amee paas bu ma mayee bu ñuy génn ma jox leen ko ñu ne ko noo parce que yaay financé booy yaa leen jox xaalis mais aussi yow yaa jënd nag bi am na ci koo xam ne loolu lañ ko jàppee loolu nag xamul li muy wundu dafa am benn baat bu Cheikh Bara Ndiaye Moussa wax li may wax li yàgg na mu ne problème mu président Macky Sall mooy parti bu am xaalis lay bañ. maanaam moom amul problème mu nitu politique mais nitu politique bu am xaalis imaginel ñu jàpp nit woowewuñ ko ni yaa lakk yaa taal yaa rey wala yaa dóore mais yaay génnee xaalis yaay financé bu ñu dajee yow yaay jënd yu li ñuy lekk ak ñoom it seen mais lan lañ bëgg waa Pastef duñ am xaalis waa Pastef duñ buñ dajee du duñu cotiser mooy li ñu toppee Amidia rek cent trente mille ne moom nga yónnee mais ñun buñ dajee tey fii ñu nekk nii ñu war a togg dara wala ñu war a def dara mais Sa Ndiogou bu ko neexee mënoo amar génneel 100000 sooy bu génneel 10000 kii génneel lii parce que ab association ab kuréel noonu lay doxee maanaam ku ne dangay def lu nga man mais bu ñu demee ba ci Pastef génne ci xaalis bakkaar la organiser nit ñi bakkaar la comme nu mu dalee ci Amidia dal ci Copper Express ñoom Hannibal mais aussi dal ci ñeneen ak ñeneen loolu lépp lu ko indi mooy lii di Pastef 300 millions yu ñu dajaloon moo leen tiital. te dama mës a dégg benn borom xam-xam mu ne élection présidentielle du bayre wala am militant rek moo koy gagné nee na dafa metti nee na il faut nga am un budget de trois milliards de francs CFA ngir mën a dem élection présidentielle gagné ko tey jii moo waral tey jii di nga li ñuy toppee Pastef nii moo waral président Macky Sall en 2008 2009 jëm 2010 Ablaye Wade woon ko fa ci xaalis bi ne dafa jóge ci Omar Bongo parce que Omar Bongo. bari na ci ay élection présidentielle yu mu doon financé ay nitu politique pourquoi Ablaye Wade woo ko pour blanchiment d'argent après ñu bàyyi Macky Sall daaw ñu fi dégg Arona Dia daaw ñu fi dégg Massamba ak Mademba ci ñi financé ay parti politique ñu leen koy jiiñ ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw diw ak diw suuf nag bu sotantee dañu ko jël fii ku fi doon dara daa am ku tax nga doon dara te alal day tax nit doon dara te politique ay loxo yi nen du ko def te loolu li koy dëggal mooy élection présidentielle yu ñu weesu 2019 Sonko li ko sonal ñàkk xaalis ci la Sonko jël na bis fii bëgg a jëm Kaolack nangan campagne bis ba demul est-ce que amul woon problème carburant est-ce que amul woon problème mu xaalis yéen a ngi dégg ñu naan ci jamono benn journal bu bindoon ni dafa am xaalis bu jóge bitim réew di dugg ci loxoy Sonko du woon sax dëgg ay kàcc la waaye itam am na xaalis bi ne woon day jaare bi Guinée Bissau ngir mën a jàppale Sonko parce que Sonko bi mu demee ba ci biir campagne bi en deux mille dix-neuf dafa xoox amatul woon xaalis kon li ko gàllankoor en deux mille dix-neuf ñoom xam nañ ko léegi la ñuy fexe nag mooy Pastef bañ am xaalis ndaxte nag Pastef am na ndaw yu ko woteel mais nag bu amee xaalis da ciy gën. parce que nag Sénégal yamul ci Dakar rek ak Ziguinchor ak Touba mais am na gox yoo xam ne boo fay dem da ngay yor xaalis mais aussi pour le transport mais aussi ñi ngay àndal di campagne dinañ lekk dinañ naan dina solu dinañ dem dinañ dikk mais oto yi ngay campagne sax da koy loué looloo tax ñiy dem élection dañuy soxla alal léegi nag li ñu bëgg mooy xoj Pastef ba du am ñaar dërëm ji nga loolu il faut que waa Pastef ji xel boo gisee ñu naan ñi ngi woo kii di Ousmane kii di mafia kàcci kàcci danoo jàpp ni ñooñ ay dajalekatu xaalis lan tey jii Kopar Express fexe nan ba gàllankoor ko parce que bëggatuñu ñuy daje xaal dajale xaalis pour Pastef tey jii nag Pastef bu amul xaalis mënul def nemmeeku tur mënul dem mënul dikk mënul yëngatu mën na gàllankoor lu bari ci ñoom te li may wax ni président Macky Sall xam na ci dara Idrissa Seck xam na ci dara ndaxte kii di président Abdoulaye Wade. bi muy dem élection fii boo déggee sa sekk daan wax nan ñu man maay actionnaire majoritaire bu parti démocratique sénégalais mooy da daan jaay alalam di def ci PDS ak ki ñuy wax Youssou jaañ mu ne njëkk nekk président assemblée nationale ci jamonoy Abdoulaye Wade te mu dëkkoon Ngaparou mooru bu may dégg dina ko xam kooku dafa jaayoon alalam ngir di financer Abdoulaye Wade pourquoi ay nit mun a jël seen alal finance Abdoulaye Wade ba mu doon président de la République. ay nit pré financé président Macky Sall ba mu doon président de la république ñu bëgg ne képp ku am alal waroo jege Pastef wala boog bu ñu ko xamee dina la woo bari na ci ñoo xam ne looloo tax ñu leen di xoxatal ndaxte daa am ñu mu ci waxtaanal kon loolu ñu war ci bàyyi xel ci li tax ñuy topp Pastef parce que nag ñi ñuy jàpp même di leen jiñ ay forces spéciales ak ay commando ñooñu bari na ci ñoo xam ne du nu man de du nu keneen danoo yor xaalis. ay hôtel lan yor ñu jàpp ni ñoo ñooy bayeeru parti bi ñu jàpp ni ñoo ñëpp bu leen téye peut-être que ba duñ am xaalis boo xam ne tey ji bu Pastef di organiser dara parce que yaa ngi xool meetingu par parcelle bi amoon Pastef bi Pastef bi amoon Yewwi Askan bi amoon parcelle mais bi ñu demee ba ci ngoon lan ne benn waay bi ñuy tudd ci commando yi foofu lañ ko jàpp Ousmane ko moo ko annoncé est-ce que jàpp nit ñi kooku moo financé woon boobi leen meeting. loolu nag mooy indi tey ji may wax waa Pastef ñu am lucidité mais aussi am dal xam nga lu tax ñu war a am lucidité am dal ndaxte dafa bokk ci patriote yi ak ñi ànd ak Sonko ñoo xam ne danoo desee am dal mais aussi émotion da leen yóbbaale mais aussi danoo desee xam politique ndaxte kii di Ousmane Sonko mooy ki leen dugal ci politique te Ousmane Sonko nag képp ku mu dugal ci politique ba nga xamee politique ak léegi yàggul ñu waxante dëgg nga am ku mel ne un Barthélemy mu nekk maire ville de Dakar ci mitingu Yewwi bi amoon parcelle yaa ngi dégg xalifa Sall mu naan meeting bi bu sottee Barthélémy li mu ci joué bari na ça veut parce que ville de Dakar budget cinquante la la fa mën a génn ci xaalis bari na kii di Macky Sall xam na ci dara keneen ak keneen xam na ci dara ndax bi ñuy nekk ci opposition taxawaayu xalifa Sall ak ville de Dakar ñëpp xamoon nañ ko kon tiré ci Barthélémy Dias jóge ci waa Pastef wala patriote yi mais nag am na ñu koy mbubboo te doonuñu ko mais ku mën a doon na ko bàyyi xamul tax Barthélemy fi ñu jëm ci combat bi ëllëg da ngeen soxla renfort bu mel ni Barthélemy Diaz ndax Barthélemy Diaz ab état la yor mais ab institution mel na ville de Dakar munoo am ab opposant bu ko yor nga koy néewal doole parce que wuy ji na président Macky ci 4 avril Barthélemy daa war a wuy ji xamul tax Barthélemy war na mën na nekk un intermédiaire entre opposition bi ak pouvoir benn maire ville de Dakar la état bi far force danoo war di waxtaan ak Barthélemy mais aussi bi ñuy xewle Barthélemy daa war a toog Barthélemy demul toog en tant que membre Yewwi wala taxawu Dakar wala Khalifa mais Barthélemy dafa war a dem en tant que maire de la ville de Dakar parce que foofu siège am dafa ne place am dafa ne li gën a bon ci àddina mooy politique de la chaise vide lu nu wootee nga ni dew ma bis dina ñëw ñu dogal loo xam ne neexul a te ci mën dara kon il faut que ñu teey ci fi ñu jëm ëllëg ak li ñu soxla ëllëg xaayaan ku dégg séeréer yeewi askan wi Pastef danoo soxla Barthélemy Diaz cinquante milliards la yor budget teg ci ville de Dakar la ne teg ci am na doole teg ci du n'importe kii kon un Barthélemy Diaz warul doon ki ñuy fragiliser maa ngi dégg ay nit yu naan patriote wala lii wala lii mais ñi xam politique dëgg-dëgg Ousmane Sonko mi xam politique xalifa mi am poli xam politique waaye yow yi xam politique du naqarlu demu Barthélemy Diaz nata Barthélemy Dias dem ga muy dem da am fu mu gën Barthélemy Dias bu doon jege Macky du ti xaar tey lu mu dajul ci nguuru Macky sàll amul Barthélemy Dias bu doon xaalis ko dugal ci politique Barthélemy Dias moom ak Idrissa Diallo dem si yàlla bi ñuy dugg parti socialiste parti socialiste fi mu gën a sonnee lan duggee parti socialiste jógee États-Unis doon lan ay opposant maanaam yow nga ñëw di dugg ci politique nekk un jeune nga dem nekk opposition ci jamono ji Sénégal yëpp bàyyi parti socialiste lan dem dugg parti socialiste ba tey ji li fekk ko ci mooy maire Dakar loyauté Barthélemy Dias doo waruta doon li ñuy waxaale Barthélemy Dias jour bi ñu jàppee kii di Khalifa Ababacar sàll ci ngoon nga dafa fanaani kaso Barthélemy Dias c'est un homme loyal cest à que daf ci am loo xam ne waruñu ko foye mais y a des yoo xam ne te arrangé wu leen te amul benn njariñ ci ñoom léegi nag les leaders de Yewwi yi bañ a dem wuy ji am nañ ci droit parce que nag mënoo tëj quatre cent jeunes bu ñuy dajee ci permanance su PRP di daje ñun leen doo leen daje ñu dem lii di atte Ousmane Sonko daañ ko deux mois deux cent millions seen kudd waroon a ràcc jàmm defatuñ ko ñuy dugal ay recours naan dañuy appel ngir gën a dugal kii di son ko kon waa Benno yi bëgguñu jàmm. yu loolu nag moo tax waa Yewwi am raison ak waa Ousmane Sonko bañ a fekk ji kii di président Macky Sall bu ñu demoon toog ca tribune ba di accolade ak di fóonante ak di joxante président Macky Sall loolu dem rey la jaale la moo tax seen ñakk dem boobu ñi naan danoo waroon a dem ñooñ ay hypocrite lan parce que bu ñu demee lan lan fay def koo xam ne loolu lal mu lalli koo xam ne dafa dem ba taxaw amul kersa ne damay réduire opposition à sa plus simple expression maanaam opposition bu ma paree ci ñoom tur rek la ñuy dese waaye seen jëmm dama koy faat président Macky Sall ñemee taxaw ci politique wax ko am na yoo xam ne bu ko xel nangoo sax ngor da koy bañ président Macky Sall sañ kaa wax ñii di opposition bu Sénégal lu Karim Wade dajul rek amul lu xalifa Sall dajul rek amul xalifa Sall dem na ba dugg ci kaso ci mbiri caisse d'avance waxuma la mu dugg ci kaso ci mbiri caisse d'avance de lumière ñu ci mbiri caisse d'avance mais ay waajuram ak i mbokkam di faatu ginnaaw gi waa Benno yi ak waa parti socialiste yi demuñu sax di ko jaale loolu mooy wane ni eggoon nan ak moom foo xam ne ci wàllu politique xalifa Sall mooy koo xam ne tey jii ci politique day toppaate rek di gunge mais mënatul tekki dara ci politique mënatul wote mënatul woteel kenn keneen mënu ko woteel ab chef de quartier sax mënu ko doon ci réew loolu lépp ki di président Macky Sall teg ko ko ba pare bëgg kaa invité ci ab table mu dem toog fa xalifa sàll nekk na fi lii di maire ville bu Dakar lumière lumière ci maire ville bu Dakar mu man de bu amee tamit li mu ko gis bariwul Macky Sall di def kat avril xalifa Sall toog ci wetam daaw ko invité waaye invité Barthélémy mu dem dara nekku ci ndaxte wala fi nee nan lu waaye bañoon daaw bu ko nangoo. ay ren ay pexem dafa jubul mooy Macky Sall jéem na lu ne ci opposition bu Sénégal waaye la bëggoon amul tey jii la yeewu askan wi gën a yeewi waaye yamuñu ci yeewu mais danoo sax yeewu léegi parce que yeewu askan wi ñi ngi yeewu parce que le 3 avril bi ñu naan waaye yi dana waroon na manifestation non du nu manifester bu nu manifester woon lan la mooy xale yi ñi ngi ci kaso bi mais ñu jàpp ay leader dugal ci kaso bi lan la mën a doon loolu mooy li jur rek. xew Kër Massar la maire de Kër Massar la Bilal war woon saraxe boppam yow yaa war a génne mooy yow yaa war a financé yow yaa war a taxawu ndaw ñi yow yaa leen war a yow xale yi nekk ci kaso bi yow yaa war a wax ba ñu génn yow yaa leen war a taxawu ba mu génn boo leen taxawee ci kaso ku leen lijjanti te kaso li ñuy faral di wax naan képp ku fa dugg dal lay lijjanti mais mënatoo lijjanti sa bopp kon bu lay jàpp nan la jàpp parce que dañ laa ton jaay la doole mais waruñu la jàpp parce que yaa saraxe sa bopp loolu aussi tamit. xale yi ci yeewi ak patriote yi ñu bàyyi ci xel waaye nag buñ ci bàyyi xel day fekk ñu jàkkaarloo nguur goo xam ne am nañu xel parce que nguur gi nag amuñu xel man côté boobu laay waxee keroog défilé bi damaa gis lu neex son bi mooy lan <laughs> mooy dama gis ay commando di défilé ma gis commando yi punkal ngande Moodu war wan ma défilé bi commando yi punkal ngande ma gis ay force spéciale ñuy défilé défilé bi rafet na ma ni ma ni ñi ñi ñooy force spéciale léegi nga xol ñun ñi ñuy force espéciale naan dal leen a jàpp force spéciale yi ne dal leen a jàpp nga xool leen ay Amidia ak ay Pape Mamadou sekk ak ay xale yi ñu jàpp ci kaso bi ak commando yi ree jàpp ba quoi ma ne nag ñii ñu ngi fooye commando ak force spéciale ndax nag bu ñu demee ba jàpp booy Pastef fi comme ni ministre Cheikh Tidiane ci defoon ci jamono yi Abdoulaye Wade ci Sidi Lamine Niass doom ay Cheikh Ndaw ay kii ni mu tudd ay dañ doon coup ak ñoom Thérèse Faye mii Thérèse fay mii ngay gis nekk APR tey takk rajo di teel teel yi moom li ñuy jiiñ gaay yi jiiñoon nañ ko moom coup d'état minuit lañ ko fi jiiñoon Cheikh Tidiane si génn nekk ministre de la justice ci télévision d'état RTS génn naan dali coup d'état tentative de coup d'état ñu ne léegi coup d'état bi ñan ñoo ko def ñu génnal ñu Cheikh Ndaw fan si club Walfadjri ak ñoom Thérèse Faye li ji nga nekk l'histoire se répète histoire se répète ne la tax addina addina moo tëradi léegi bu man bi ma gisee gars yi taxaw moo di di ma wan ma ne li ñu mooy force spéciale li mooy commando ñu ñooy corps d'élite bu Sénégal li ñu nekk ça veut dire que yi rek wane na ni ñee li lañ din du dëgg ñu wante dëgg nag force spéciale du lu tuuti commando du lu tuuti ñu wante dëgg du lu tuuti ay cocktail Molotov yoo xam ne étudiants yi dañ ko daan jëfandikoo fii ñu koy jiñ ay ndaw maa ngi gis ab journal boobu di tappale lépp lu nguur gi nar ci boobu la koy jàllale maa ngi dégg journal bi naan ca université dal nañ fa ay cocktail molotov fekk na ci ab chambre ba tey jii du la wax ci ban chambre la du la wan cocktail molotov yi du la wan dara dañuy fen rek pour manipuler takkal waa Pastef fii mais aussi bëgg a tas parti Pastef bëgg a jiiñ Ousmane Sonko ne ay bandi la àndal ñoo xam ne dañoo bëgg a tas réew mi loolu rek lañ ci jublu mais lépp lu ñuy wax jëme ko du dëgg parce que ñeg ñii ñu gis ñu naan commandeur ak force spéciale ñii dun ay caaxaan ñii xajuñu ci ay cocktail molotov kon nanu bàyyi yi ñuy foye te bàyyi doomu jàmbur yi ñuy jiiñ ay rebelle ay force spéciale ay commando te nu bàyyi ko ndaxte ku xool nag 4 avril bi di nga xam lan mooy force spéciale di nga xam lan mooy commando nan bàyyi seen caaxaan yi léegi nag fi may daanele mooy parti boobu di Pastef ma jàpp ni bul nu gëmoon démocratie gëm réew mi mais aussi maanaam gëm dara Pastef dañ koy fonk xamul dax Ousmane Sonko mi ngi nii Pastef bi ñu koy créé Ousmane Sonko mi créé wu ko ab parti sénégalais woon tey jii mi ngi ci parti africain ñoom Matar seen ay Birame Souleye Diop ay ñeneen ak ñeneen bugguma tudd ay tur ñoo ñoo créé Pastef wóolu Ousmane Sonko dénk ko parti bi Pastef li mu indi ci débat politique bu Sénégal avant Pastef di ñëw Macky Sall xam lu doon nappee opposition bi politique rek ngeen di def ñëw leen ci débat économique Sonko ñëw bind livre tuddee ko solution waaw loolu dax sa saa jógu solution solution rek la mën a doon ndaxte nag Son Ousmane Sonko bi muy ibbeeku ci solution la ibbeekoo maanaam réew mi bëri na problème mu jël ab livre bindee ko tuddee ko solution ñu jóge ci loolu Ousmane Sonko di indi débat économique ci 94 milliards ci suufu réew mi ci pétrole réew mi ci budget réew mi Ousmane Sonko di ci indi débat daawul wax politique mu dem ba mën leen foofu mënaluñ ko dara ñu ko taxal dara ñoo indi mbiri 94 milliards mënuñu ko ci yay ci leen indi mbiri Adji Sarr pour divertir ko mbiri Adji Sarr yooyu pour divertir ko mais boo xoolee Pastef tey lu tax ñu war leen a fonk mooy débat politique bu Sénégal ñun ñuy yàgg def ay émission politique da nga daan invité ay nit PDS AFP APR AFP mais les mêmes personnes da dem ba yow doo bëggati invité nit yu politique mais bi bi Pastef ñëwee ci leen enrichir le débat politique débat bi nga gis ci ay ndaw yu bees loolu rek war nañ ko fonkee Pastef ay nit yu bees yoo xam ne tey jii ñi ngi wax ci wàllu politique ay nit yu bees yoo xam ne tey jii am nañu xam-xam léegi plateau yi changé na parce que yaa ngi gis ay xale yoo xam ne tey jii li doon nalaw ci ñoom Pastef moo ko yee tey jii parti bu tool noonu ak ambition ak patriotisme ak gëm sa réew ak moom sa réew gi muy dundaloo waa réew mi waroon na tax parti bii ñu sàmm ko. mais parti bii ñu taxawu ko parce que danoo indi leneen lu bees ci wàllu politique mais discours bu bees ay débat yu bees parti boobu bu ñu gëmee bëggee gëmal ni ay terroriste lañ ñun duñ ko gëm bu ñu bëggee gëm ne ñii duñ ay homme d'état gëmuñu réew duñ ko gëm bu ñu bëggee gëmal ni ñii ay salafiste la ñun duñ ko gëm bu ñu bëggee gëmal ñii ay rebelle duñ ko gëm bu ñu bëggee gëmal ni ñii ay force spéciale lañ duñ ko gëm ñun ñii liggéey ci média yi di def ay débat ñun ñoo xam valeur Pastef parce que dafa enrichir le débat politique parce que débat politique bu Sénégal daawul changer les mêmes têtes rek ngay gis les mêmes personnes nga doon gis dans les débats mais depuis que Pastef est là mais am na nu matière même ñun ñuy liggéey ci médias yi te Pastef li naan les nouveaux métiers que la lañ tuddee leen nouveaux métiers mooy réseaux sociaux yi tey ji bu ci ay nit di tedd mais Pastef ci la parce que débat am na ba nit ñi mën a wax ci lu ne mais aussi xel yi ibbeeku mais aussi li doon nalaw sénégalais ci patriotisme gëm sa réew parce que lan lañ daan wax sénégalais yi duñ ay patriote un parti ñëwut judd toll ni mu toll ñu am un leader sénégalais un Ousmane Sonko mais aussi un leader africain boo xam ne tey jii yeneen réew africains yi dañ ñu koy ñeewee léegi ñu bëggoon ñu ko yàqal ay Cheikh Yérim Seck ay Madiambal Diagne ay ñoom Mame Mbaye ñoo xam ne matuñu mbuus bëgg ñu yàqal mbuus maanaam ñi mat matul mbuus ñooñu bëgg a yàqal Ousmane Sonko ñi matul mbuus ñooñu bëgg a yàqal mbuus waaye lépp lu mu leen jaral pour ñu yàq ko na ko jaral waa Pastef pour du yàqu di gërëm ñëpp di leen sant di ñaanal ñëpp jàmm di jégalu ñëpp bu dee kàddu yi ëpp na di ñaan jàmm ci réew mi di gërëm bu baax euh, waa solution di leen wax ni rek euh, dee leen euh, seetaan mais aussi di aimer di commenter mais aussi di partager pour affaire yu gën a yaatu El Hadj Modou Diouf topp ak Ablaye Fallou saa njëgu son bu ak groupe solution yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm Omar bun Xattaab Gueye moo doon àddu ngeen di teewlu mbokk yi ba beneen yoon incha allah.